voilà kon boo tax na lay ñaan daal di ko sàkku ci yow di ko sàkku ci suñ Diomaye Bassirou Diomaye Faye mi nga àndal ngeen respecté senegal yi wér wér te xam ne di ni dañoo xeex ngir yéen dañoo jaante ngir yéen dañoo génna seen alal ngir yéen ngir am fu bëgg a yóbbu senegal lu ñëpp lu kenn mënut a seddoo ñu ñëpp luñ bokk nag te mënuñu koo seddoo faaw ni jéem a xool ni ñu àndee daal ak ñu koy bokkee Sénégal kenn mënu ko seddoo kon kon ba tax nag nga bàyyi xel bu baax liñ lay wax yow Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ñun yow lañ fal voilà yow lañ bëgg yow yaa ñu woon lu tax ñu la gëm sa wax bu duggee bu génnee day duggee ci xol dugg ci biir xol directement waaw ma ñax ma sama ne yow rek laay topp yow rek laa suivre ah, kon ba tax na tamit ñu ngeen bàyyi xel bu baax li leen liñ leen di wax voilà nga xam ne àdduna solo waaw àdduna solo yëpp jàngal nga na ko waaw yëpp jàngal nga na liggéey rek moo mën a jël réew kanam liggéey rek moo mën a yooyu yaa ngi ci woo yaa ngi ci woo ba tax ñun ñëpp tey détail yëpp dañ koo bàyyi ay làmb ay football ay soirée xawaare yëpp dara safuñu ndax yooyu yëpp bala ngay naam ne fa réew bu neexee ba développé yooyu yëpp mën naa dem ba nekk nii sax te du feeñ. waaw àdduna folklore bu jiitoo rek bu caaxaan jiitoo rek dëgg dëgg réer waaw. te ginnaaw yàlla yooyu yëpp yow yaa tax ñu gëm ko ki may jàngal alxuraan da woon naa ko ki may jàngal boog euh, fiqh risala nee naa ko yow a yow théorie nga ma jaay mais si na Ousmane ak Macky Sall ñoom ma woon pratique. ndax li ma doon wax yëpp ci yéen ci yow laa ko gise yow laa ko dundee waaw kon nag ba tax na nga bàyyi xel bu baax a baax li lay di ndax am na yoo xam ne moom am nañ gëm nañu am nga fitu jàkkaarloo ku doon ci kaw suuf loolu ba na suñu nopp am nga fitu jàkkaarloo ku mu mën a doon ci kaw suuf moo tax kii tamit bu jiitalee boo ko jiitalee ba pare am na yenn yoo xam ne lu lu ciy dëgg tamit bu ko ko bàyyee voilà ay moo la jiitu moo la tënk nii nii nii na dëgg rek daw ndax xam na la fulaak fay yaa ko ëpp ñëpp lu ma mus a gént di ko xalaat ni noonu ngay doxalee maanaam doxalin bu gën a rafet bu ma ñëwee moom laay fekk mosoo ñëw rus la benn yoon voilà di la ñaan euh, réussir voilà Sénégal du la fàtte yaay suñu Thomas Sankara yaay suñu Cheikh Anta Diop yaay suñu Nelson Mandela xamul leen yow lañ xam li la wax rek ku sa ko daal yow yow lañ àndal yow lañ tàpp yow lañ gëm te yow xam loo xam ci tey maa leen di giñal ci alxuraan ni tey bu yoboo ngeen sax mu ak sénégalais ndax xam naa sama saar yi ak ñeneen ñi tey nii nii nii si at politique ci yéen lañ koy jàppee wala ci ci la ñuy bàyyee politique ba faw faw faw faw faw faw faw faw ilaayam yëpp en son jërul sax nit di ñëwaat fii di ñu expliquer leneen lu ñu war a dégg-dégg yëpp dégg nañ ko lu ñu war a xam xam nañ ko jëfe rek moo des fi doon wax jeex na caaxaan fax yi wax gas yi waaw kon nag loolu la Seydina Ousmane bu la kenn déstabilisé réew mi ginnaaw yàlla yow yaa tax mu yegg fii ginnaaw yàlla yow yaa tax nit ñu jaayante ak sénégalais ginnaaw yàlla yow la yow la yaa ñu joxoon jamaa boo ñu joxoon birom soleil sax ñu woteel ko boo ñu koo ñu joxoon ñu woteel ko voilà waaye nag sénégalais souvent tàmm nañ nag koo ci yëkkati ba teg ko fi nga war a teg mu jàppee la golo quoi defe ne moo la ëpp sañ-sañ ñu koy jay président de la république ñëng ñëng ñëng président di ko jéem wutal ay institution xam ne di ko nit kese nit lañ sawaay voilà yaa ñu jiite taxul ni defen yaa ñu moom wala leneen ak leneen amul leneen ak leneen ñun ñoo la fal yow yaa suñu mbindaan pour lan pour lan ñii nii pour lan pour lan pourquoi yow da nekk président daa tax nga gën nit ñi Macky nii lañ ko def rek lu ne ñu koy wax multidimensionnel ak kenn du ko laal kenn du def nii ba mujj Macky Sall defee ni rakk yàlla la loolu lépp loolu moo ko andi même Assane mii nii tax ñi wax naan non dafa filmé dafa filmé nii noonu la ko wax sax ci teggin ci yar ah ko xamal ne ko li pour raison de sécurité wala affaire yooyu noonu ne mel ni nit ñi ah léegi dañoo kii léegi jomaay dafa nekk nit bi xëy suba nekkaat beneen nit non loolu baaxul nit liggéey ëpp solo si yàlla jox la cër ba cër boobu nga ko dalawaat ko dalawaat ko askan wi ci a yëkkati te Seydina Ousmane yooyu rek lañ gis ci yow a jox rek wàccewaat nga sa bopp ba tollu ñun waaw te booy wax day leer day dugg suñu bopp yi doo jee kenn waa Casamance la nga doon wax ñu ñun ñun ñëpp dégg nañ ko wax ju wax ju tegu wax ju toog waaw di wax mel ni koy wax a say doom ñun yooyu lañ lañ bëgg te yow yooyu ngay def ak ñun te góor yàlla dëgg la waaw seegal bi moom nit ku la gën a dëgër ku la nekk góor góor moom du fi jaar du gaawam voilà senegal nag la lañ ko mus a xamee mën nañ jël muus teg ko ci gaw gaynde voilà waaye gàcce nga laa ma dañuy gërëm à moment rek à ñi moment gërëm di la ñaanal yàlla yéena boo am ci Sénégal ci lu baax yàlla yàlla defal sa lu kawe sa njor ci loolu voilà ñun yow rek lañuy topp loo ñu wax loolu la topp voilà ano nag yombul voilà waaw waaye nag ñu ngi lay ñaan réussite daal wax nag jomaay na ko teg ci yoon ginnaaw yàlla si na Ousmane mu sell mi moo tax ñuy woote la da falu respecté ko lépp lu mu la wax loolu la tubaab yi nii lépp loo xam ci ñu ngi koy seq ñun hmm. du lu ñuy jëmale kanam seen bopp doo nga leen ñor seen bopp doo nga ñor xam nañ tubaab de wallaahi xam na leen seen bopp doo nga leen ñor lépp lu ñu xool ci doomu aadama ñu seq doomu aadama seen intérêt mooy moom lay jiital ci lépp lu ñu mën a seq nit waaw ragalun yàlla jaamul yonte bi seen yoon newu ci ragalun yàlla gëmul yonte bi seen yoon newu ci nuñ am nu seen àdduna baaxee rek baax na ak nu leen ci mën a fekk nag ak nu ñu ci mën a góobee ñoom noonu lañ noonu lañuy dundee xam nañ leen voilà waaw te seen am na war nga ñu fullaak fayda bu bér amuñu benn complexe léegi ci benn doomu aadama bu yeewoo ci kaw suuf waaw te loolu yëpp yow yaa tax ñu génn ci yooyu yëpp espace boobu man nawuma lijjantiwuma américain lijjantiwuma français lijjantiwuma asiatique à cause de toi lijjantiwuma kenn léegi Sénégal doogu laa bëgg à cause de toi ndax man demoon naa ba sama weddi ni man léegi aduna na golo xam na ko boote doomam daal réew mi man xamatuma ci dara ku ma la jaar ci micro ko yaa xam ku jaar ci géej yaa xam ku jaar ci désert ba ak yaa xam ku nekk daal vie ma vie la léegi on s'en fout grâce à toi yow yaa tax ma dellu si waat bu <laughs> dul woon yi kenn du ma jiit ci micro ko wala deneen nu fexe ra ba raw la sëg vie rek on s'en fout <laughs> même bu dee <clears throat> étranger day ñëw sax moom suñu réew mi yooyu yëpp ñu on s'en fout xel moom moo ne sa sax bopp voilà ah, kon nag dee sant di la gërëm da dina ñaan yàlla gudd fan ak wér tawfeex ak taysiir bul décoration mukk ndax Sénégal moom boo leen di wut dañ leen di boole def leen ngeen nekk benn nangam nangam bis bu am am ñëwee ñu commencé leen di leen séparé moo tax li nga def nii tey giñ naa ko ci alxuraan boo tànn un million sénégalais doo ma ci gënal ñaari nit wala bu dee benn la mooy yow ndax sénégalais neexut a xam nañ bu baax la fi nekk neexut a dimbali neex da ki léegi ki koy dimbali tey ëllëg mooy nekk sa noonu ki doon sam noonu tey ëllëg mooy nekk sa soppe senegal noonu lay doxee saa yu xasee am rek ñu doon ànd ak ñoom démb di bërki démb di xeex jooka daanu voilà leen jéem a effacé teg leen fële voilà te ñun ko saa yi ñëpp maa ngi leen di wax tamit àdduna nit bu amee tamit yan am amee wala ba jàpp ba sutoon ko tamit day amaat yeneen xel ak yeneen xalaat yoo xam tamit day jëlale Sénégal kanam ci lépp nag waaw changement dafa jot ci ñëpp ci ñëpp ku nekk ñu jar suñ bopp ñun ñëpp liggéey ànd ak fulla ak fayda ak waaw loolu rek moo ñuy xaar réew kenn nit du ko defar ñaar du ko defar ko defar Sénégal yëpp ñooy ànd bokk defar te dooleel ko te may leen temps tamit aussi ndar xëyul sotti waaw adduna yombul.